sama yéene laa am ak ñaan yàlla suñu borom yàlla bi nga xam ne lépp lu waay am si àdduna moom yàlla moo lay ko may man Karamba defewu ma ni may doxe de damay defe si li ma yàlla dégg di ñaan yàlla suñu borom yal na yàlla may Sénégal ndam. yal na yàlla may Sénégal ndam. yal na yàlla suñu borom may Sénégal ndam comme ni ko daan may yal na ko yàlla suñu borom def yàlla moom na ko buur bu baax la. te am naa yaakaar yàlla dinañu ko defal. yal nañu ko yàlla defal si kàttanam ak man-manam. ndeysaan ndeysaan yàlla may ndam. boo gisee fa ay ñu sax dañuy naan faral leen dañoo sonn loo xam ne jaay nii. waaw benn yàlla la yàlla bëgg Sénégal gañe rek. bëgg Sénégal gañe rek. borom Jakarta ah. am na am na am na am na am na waaw. Thank you.

ah. kaay kaay nii rek. ñooñu ñooñu. ñaari soxna la mooy ñaari ba. <laughs> Karamba daa soxo daa soxo andi ko. waaw. daa soxo. waaw la daa soxo andi ko. waaw waaw.

defuma ko pour wane wu defuma ko pour defuma ko pour nit ñi xam ma parce que nit ñi xam nañ ma ma xam comme ni ma ko daan defee laa am yéene pour defe ko ma xool après lan la ñu yàlla suñu borom di may lépp lu ñu yàlla may ñu xam ne tey lii la ñu yàlla may mais am naa yéene suñu borom yàlla nañu yàlla may ndam tey tey looloo waral sama sarax yi may def aja borom ji aja borom ji ne yaa fi ne doole ñooy bagadu ndox yi am. la réew. yàlla yàlla bi nga ne Karamba mënul dara. de. mais yàlla mën na. yàlla bi nga xamante ni moo ëpp doole si àdduna man de samay sarax laay génne si li ma yàlla may ñaan yàlla pour yàlla may Sénégal ndax li may def kenn faa dara sama ñaq sama xaalis lay génne pour comme peuple Sénégal ñenn ñi li ñuy yaakaar si Karamba Karamba war na see man a dem ba jeex li ma ci war a demee ba jeex mooy tey damay jël sama ñaq di ko génne sarax pour ñaanal yàlla pour Sénégal may ko nam parce que sëriñu Sénégal yëpp dañoo jug pour xeex ma dañoo jug pour xeex ma pour jox Sénégal def na. yàlla na yàlla jàppale. ñaanal leen ma. yàlla yàlla mën na ko ñaanal leen ma. ñaanal leen ma rek. ñaanal leen ma rek. gëm de. Gara Gara yow laa gëm. affaire bi yow la. soo lu soo lu yow la. waaw waaw waaw. yàlla leen Sénégal yàlla may ko. non da koy may ndam yow xam nga yaa ngi ci biir ba nga dugalee sa loxo rek la man. booy sa ci weer laa loo. Thank you. onze mille. merci. cinq francs. loolu la. booy puuseen ma wax ak kilifa yi. booy puuseen ma wax ak kilifa yi. ana kilifa gi moo leen mag yooyu kaay kilifa gi ak xaw maa ngi ko fas saraxe pour ngeen ñaanal Sénégal. dëgg la parce que naxaatekat yëpp dañoo toog pour xeex. déggoo ma maa ngi dëkk ba Pikine xool sama oto ngi ne la dama laa romb nga taxaw moo tax ma taxaw. correct waaw man dama lay siy bu baax a baax. sarax bi daa am waaw. Aliou Assane ah. ñaanal ñaanal yàlla mayaat rek incha allahu rabbi. vraiment man maa ñaan tàngoor. jëm sëñ Fall. sama sarax du ko du ko jóg parce que ngay def si leer laa koy def. yàlla rek day naan. waaw te doucement rek daf leen ndànk rek gars yi. ndànk rek dara bi day daa am lu muy am. mais bu sën. xam nga moo leen ndànk rek. boo arrêté boo arrêté. waaw ñaanal Sénégal yàlla may ko ndam ñaanal Sénégal yàlla suñu borom may ko ndam jaajëf France mooy jaajëf boy ah waaw mu jënd dërëm dërëm foofu ay dërëm voilà station voilà Karamba daa soog a añu koo borom jiw bi nga Sénégal mooy lii. yëgoo ko boo demee dina ko téléphone. Karamba sax ñu ngi waaw. dërëm dërëm yi ñu ko wax ñaata dërëm. taalibe yeeg yeeg ñëw di doole yeeg yëpp waaw ku nekk da lay saxal di jël xaalisam di def ci équipe bi waaw moom bokk na sëriñ yi xamante ni day encaisse waaw moom day jël xaalisam di ko jox ba nii mooy Karamba waaw daal ko yàlla yàggal waaw

Bamba Karamba la xaaral tuuti le li may def waaye dañuy xeex de. comment yow bul Sénégal am ndam. dama koy def pour Sénégal. mënuma dara de mais yàlla man na damay ñaan yàlla pour yàlla may Sénégal ndam lu set wécc man si li ma yàlla may laay ñaan yàlla jël yàlla dénk samay loxo xool yàlla ba merci. merci merci. le roi du ballon Karamba. merci. loolu ñaata ñaata. loolu daa tuuti. merci. wala jaay la ma si kaasu café mu indaale ma ko dégg nga. le roi du peuple. kabay kabay bul yàq suñu liggéey waaye ngir yàlla yàq suñu liggéey bopp. Hey!

arrêté leen rek gaal gi nii lu bëri doole. Ada karamba. Ada karamba. Karamba. Karamba. Karamba.

sëñ Fallou la mënul dara yàlla mën na Fallou xam ne wóoree Sénégal ah dama xoolee tey laaj am Macky Sall tey boo xoolee jërëjëf ministre Sénégal jërëjëf ministre des sports Karamba le Messi le Balboa par exemple Diatta Mara non le peuple yaa fi nekk yaa fi nekk Ali Ndoye Ali tey ñu bëri ko tey Karamba moo seen bàyyi le Diatta Mara le peuple waaye plus yaa wóor bàyyi yaa gën nga lay def yaa sagal Sénégal yaa sagal Sénégal Macky Sall le ndeysaan yaram daw na yaram ba yaram national mu ngi nii billahi wallahi jangi xam na ko tarbiyu ak mu yàlla mooy xam na tek Sénégal yàlla moo la Sénégal yàlla moo la may kenn mënu ci dara du loolu du daw du dine du tous ak mo ko ndeysaan ni noonu ku fa dara wallahi ya bu ya nga àndal teeral bul tibb ragal nga àndal bul tibb ragal dafa ànd ak yàlla ak sëñ Fallu ak xam-xam ni nga saxalee sa ginnaaw yàlla moo yàlla saxalee wallahi wallahi taala dem leen seetaan man si mbaay waaw dem leen seetaan man si mbaay comité déglu leen déglu leen ngeen dal. dal leen dal dal tey si mbaal bi ngeen taal kër gi.

bu ko yokk bu ko naa bàyyi saa yow li war a am yàlla pare na ko ba pare nañ gëm borom bi rek ndax moo ñu may. waaw. Aziz mais amul ay leer de ñoo fi nekk. Allahumma Serigne Fallou Mbacké jaaraama Serigne Fallou Mbacké jaaraama Serigne Fallou Mbacké jaaraama Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou Mbacké waaw waaw waaw

engagé lépp loo xam ne bu ngeen ko suñu Karamba équipement bi baax incha allah gañe rek. Thank you. way